am ko ñëw Xirsa. Xirsa la. parce que léegi artiste bu bu ma réer rek. Weekend Star la koy xol ok Weekend Star. bay même Weekend Star bu séré dama lay yóbbu setu bi. mais man damaa jaaxle yow. <laughs> et eh, mais mais yow lo garaaw na dé waaw ah, maa wax ak yow dé eh bay ki mom télé bi. culture il faut il faut que ma invité la nga wax ma. animateur influenceur artiste comédien showman sañsekat phénomène. bye. bàyyi bàyyi na jiiri CSB jug ñibi ma tok fofu léegi nga laaj ma li jiiri CSB da ko mu ñibi. mais yow c'est vrai hein. est-ce que xam nga ni Tio yow Amina. Ah. gis nga affaire bu la jegee doo xam valeur bi. dëgg la il faut que mu sori lu tuuti nga xam valeur bi. dëgg la ñun xamuñu valeur am. animateur influenceur comédien artiste waykat. mi ngi ci lépp. doxaneur. Ah. <laughs> kaay ma bi ma ci teg kaay dama la koy dee bugguma Sénégal dégg ko kaay ma dee la ko ngir yàlla dama la koy dee rek Amina Amina jël dama la koy dee <laughs> wala boobu ndànk laa koy wax <laughs> xam nga lii moo tax saa yu ñu waree bokk émission dañuy réñoo ak man ne ma bu ko topp dara safu ko mais boo ko toppee di nga def wala nga wax ba wax loo war ta wax mais bon c'est pas grave on se fait plaisir. équipe bu jëlee coupe waaw kay ni nga jëlee ni baax na bañ jox leen seen raaya ah. après am na benn bouteille boo xam ne moom la ñuy ubbi. élégance bay arrosé. mais eh, bul allo waaw eh, xaaral ñu gërëm bul eh, arrosé ko xaaral ah, remercier pare waaw xaaral ñu remercier waaw xaaral tuuti xaaral ñu remercier ñëpp dama bëggoon remercier mademoiselle Kado elle nous a rejoint elle a beaucoup de talent et puis elle est très jolie Marie tamit ñu ngi koy gërëm. moom a solal lii élégance rabu bi Marie Niass. Uh-huh. day gërëm ki ko solal da ko fàtte. Baye pour wan leen ni non non maa ngi koy gërëm bu baax moom euh, Toro Baye Biscop maa ngi koy gërëm bu baax. pour wan leen ni merci beaucoup Marie Niass borom élégance. sama bopp laay commencé pour wan leen ni yéen ñëpp laa koy.